dal nag jàmm ci xibaar yi dañu koy door rek lakk gi am fële ca Thiali foofe nag euh, benn néeg daal moo fa daal di lakk lu tollook ñaari million daal di la réer ci lakk gi le euh, sapeur pompier nag euh, ñëw na teel ngir rek daal di fay lakk googee daañu si ñëw nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi ñi nga xam ne nag ñoo di étudiants yi amal nañu nag benn journée de sensibilisation ngir gën a yeex askan wi ci mesure barrières yi ñeel feebaru coronavirus Euh, daañu si ñëw ci euh, biir euh, xibaar yi ñu jeexale xibaar yi ak les femmes retraitées yi nga xam ne rek daal di nañuy jagleel comité local bi nga xam ne rek dafay saytu lii di coronavirus ci diwaanu Thiès ci njiital Talla Sylla ñu yëkkati nag lu tollook ceeb ak diwlin jagleel ko comité booba ngir soob seen loxo ci xeex jàngoroy coronavirus. ganu xibaar yi El Hadj Khar Sène président bu mouvement mental la ñu si dalal responsable politique ci zone nord. Euh, fas yéene ne waxtaan nag ay ponk ñeel Covid 19. mbokk yi ñuy àddoo fii ci marché central ci kàddu gi Ahmadou Luy feggoog Adama Ndiaye ci wàllu caméra bi ne sut ñu dikk ak yéen ci faram-fàcce gi. mu ngoog ñu dellu nuyu leen jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme Thiès info point com dañu koy door rek lakk gi am fële ca caali foofee nag euh, benn kër moo fa doon lakk lu toll nag benn néeg daal di lakk ba jeex euh, lu tollook ñaari million euh, réer mëng ca lakk ba bu ñu sukkandikoo nag ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo lakkale foofee ca Thiali. ci leeral yi adjudant Samba Camara ci micro Adama Ndiaye. bon ñun dañu woo vers dix heures vingt-huit minutes. ñu ngi fi yegg si à euh, 10 heures 39 minute lañ ñu ñu ngi fi yegg si vers 10 euh, heures 44 bi ñu sapar pompier Thiès adjudant Samba Camara Boye léegi dañu woon pour un feu de chambre mais bi ñu yegg see fekk nañ néeg bi pratiquement muy tàkk mais jot nañ ko fay si ak élément de la 21e compagnie àndaloon ak une lance donc Q2 et Q3 lañ ko mujje fayee ko. descente bi néeg bi pratiquement bagage yëpp ñoo tàkk parce que euh, ñu ne ñoom dañ ko yéex a yëg quoi dañ ko yéex yëg et la ventilation demeewul woon noonu moo tax mu activé wu donc bu bu mu gën a gaawee ko bon amul cas amul personne blessée amul dara. pratiquement bagage yi rek ñoo yàqu lal armoire ak une certaine somme d'argent ba xam ne da si ki fi yàqule déclaré na ko daf ko denceen si néeg bi daal ak ay bijoux yooyu. mu nekkoon adjudant Samba Camara ñaari million moo jota nag lakk ci lakk gi ñi nga xam ne nag xëy na loole ñoom la laal kàddu yi la ñu dénk Adama Ndiaye ñu teewlu ko. vraiment lii daal mooy dëkkandoo. lii fi am nag dogal suñu borom la. waaw parce que man xëy si xëy naa dem atelier bàyyi 10 heures demi si la ma sama soxna woo ne ma kër gaa ngi tàkk. l'origine de l'incendie nag pour l'instant xamuñu ko mais xam nañ ne alal ju bari yàqu na fi puisque maire bi la néegam lakk il y une somme presque de 2 millions de francs CFA ak des bijoux en or dont deux bracelets deux chaînes en or avec des bagues loolu laal moo fa nekkoon ak matériel ustensile maanaam ay kudda affaire yooyu daal bagage jigéen loolu daal moo nekkoon ci néeg bi. une somme de deux de deux millions de francs CFA moo fa nekkoon ak des bijoux en or. waaw en liquidité effectivement en liquidité. am na benn somme boo xamante ni jot naa ko récupérer mais boobu da koo dencoon ci beneen côté parce que bi ma ñëwee rek ci la ma woone ma duggal ci néeg bi bërëb sàngam denc naa fa xaalis toll na ci ñaari millions yi manqué fukki junni. sama sët bi moo ma xëcc ma daanu ndax dama doon dugg ci biir ndax li ne ci biir moom ma metti waaw. bi muy lakk est-ce kenn nekkoon na ci néeg bi. kenn nekku fa woon wala am na lu fa taal. nekku fa woon kenn taal ñu fa dara kenn nekku fa woon waaw. ko waral ah xanaa courant. courant bi tëkk bu mu ta bu ñu kii lañ ko ta lañ ko lañ ko lañ ko waaw. est-ce que mën ñu nga fa yàqule man denc naa ci sama xaalisu bopp. ñaari million denc naa ko ci sama biir nekk ak sama jaaro or ak sama ceenu or ak sama sama lépp rekk sama lépp. sama lépp sama yére yu baax yére yu baax lépp lakk na. lépp lakk ñu dellu wax ci leneen amicale bi ëmb étudiants ngi nekk fii ci diwaanu Thiès amal na ñu benn journée de sensibilisation. ngir yee askan wi waa cees ngir ñu gën a fàggandiku ci mesure barrière yi lii leen ñu amal ko ci promenade des Thiessois seeni i kàddu ñu teewlu ko ci micro Thiès Info. man la coordonnateur étudiant wu régional volontaire yu Thiès waaw li waral ndaje bi tey mooy ñu participer ci xeex bi comme ni ko ñëpp di defee. ni ko Sénégal bu baax yëpp di defee ni ko suñu autorité di defee suñu sportif yi di defee boo seetloo comme masque bii ma takk ASC Jaloore moo ma ko may fii tout vraiment bu ñu demee sax ba ay seen daan di si jàpp ñun étudiants yi kenn waruñu see jiitu voilà donc moo waral ñu en projet bi ñëw pour def tey jii concept bu njëkk bi mooy Thiès laa dëkk damay raxasu waaw bu ko desee nag am na yeneen étapes yi si topp mooy distribution des masques masques yi mooy dugal ko ci lieu de culte yi wala ñu dugal ko aussi ci marché yi wala aussi ci gox-goxaat yi ñi nga xamante ne ñoo ko yelloo ñu jox leen ko na ku ne gëm ne mbas mi lu am la voilà ku nekk ka dendal bu xamul xamal ko ni mbas mi mi ngi suñu biir. te day lore te day fi jamono ji toll mbas mi moo ñu ko yóbbee bu fekkee Sénégal wala àdduna bi lépp a taxaw yàlla ak mbas mi la donc nañu xeex lu ñu mën nañu jàppante lu ñu mën nañu dimbalante lu ñu mën ku ne la nga am na nga ci dimbali sa morom voilà bu fekkee cent franc nga am dimbali ci sa morom bu kenn denc dara nag ñëpp génne li ñu yor dimbalante suñu biir. étudiants yi wax dëgg yàlla bugg ñoo des ginnaaw ji xeex bi surtout nag ñun waa Thiès pare nañ pour dugal suñu loxo ci lépp li nga xamante ni xeex bi la concerné pour ñu jëlee fi maanaam mbas mi. jigéen yi retraité yi nekk fii ci euh, diwaanu Thiès amaloon ab tukkib nemmeeku ci euh, mairie bu Thiès ville am ndimbal lu am solo lu ñu jagleel nag comité local bi le lii nag ñu sóob si seen loxo ngir rek jàppale askan wi ci xeex coronavirus rawatina ci jamono joo xam ne lii di ndimbal li ñëpp ko daal di yittewoo euh, seen i kàddu ñu teewlu ko ci micro Thiès info. suñu ñëwu tey bi ñan ñooy ñëw mooy jigéenu Thiès ñi tuddee seen bopp. ñu jigéen ñi àndandoo ngir delloo njukkal seen borom àndandoo di agir par devoir li tax mu le maire ñu wax loolu mooy ay jigéen lañu yu liggéey ba retraité kon ñu nekk ay jigéen yoo xamante ne dañu nekkoon ci nekkoon ci seen action di liggéey maanaam ay ay intellectuel ak ay femme de développement bi ñu retraité ñu ne toog day jàpp li ñu war a def vu la situation perte de valeur coono àddina tolof tolof yi am ñu ne ñun amuñu droit toog dañuy toog weer bu dee ñu daje jéem a waxtaan ci situation réew mi xool loo xamante ne mën nañ cee dugal suñu loxo ñu dugal ko si di cotiser nag di denc ci cotisation yooyu la jël lu mel nii fu nu ko déggee ci néew ji doole ñu dugal ci suñu loxo kon li ngay def dafa bokk ci li nga xam ne suñu mission la yow nag monsieur le maire ñu ngi lay ñaanal yàlla. di la gërëm di la sant waaye bett ñu ndax xam nañ la ñoo la jur fii nga dëkk fii nga juddoo lépp looy def yàlla nga koy seedeel ay mag lañu gisatuñu lu ñu jaral di wax ci doomu aadama wala di wax pour lu neex doomu aadama bu ñu doon gis leneen ci yow doonu jaral un mètre kon duñu jóg c'est parce que dañu gis ci yow fulla gis ci yow fayda gis ci yow nangoo liggéey mu jaral la sa bakkan jaral la lu ne looloo tax ñu soppati lii ci sunu asakay yéene bu am tolloon ni ñàkk nag taala doo wuti dara doo ñaani dara doo seet dara lépp ñoo koy def ndax xam nañu fi nga jóge waaye xam nañu fi nga jóg xam nañu say objectif xam nañu sa ngëm-ngëm ñu ngi lay masaw waaye di la ñaanal yàlla di la wax ne bul gest di la wax ne fonce incha allahu rabi da ngay réussir li ngay def ndax yàlla kese la lii na xamal ne xeeb nañ ko lool ñun agir par devoir delloo njukkal ñoo ko jël di la ko dimbalee te di la wax nga ñaanal ndax nu am leneen ba dellu si wala yàlla. Talla silla maire bu Thiès ville daal di rafetlu nag taxawaay bi jigéen ñi la am kàddu yi lay la dénk euh, micro Thiès info ñu teewlu ko. da ngeen nekk ci société xam société bi li mu laaj ngeen xam ne kenn ku ci nekk am na loo ameel société bi am na it société bi lu mu la ameel waaye yow nga ni da nga ak la nga ameel société bi muy waar yi nga xam ne kenn ku ca nekk bu ca matalee wàllam société bi taxaw jag nga ne lii ci sama waar ma bokk ko ak góor ñu baax ñi ah danañ ci jëf jëf joo xam ne kenn du nu xeeb te kenn du taxaw suba ni fu ngeen nekkoon ba lii di am euh, jëf jooju nag xamal ne jëf ju takku la ndax Cheikh bi daan na ko wax jëf rek a takku maanaam kenn du ko xeeb kenn du ko xeeb ndax dafa am benn moralu action moralu action boobu mooy lan mooy kenn ku ci nekk balaa ngay def action balaa ngay jëf nga ne ah lii may waaj a jëf de bala ma koo jëf naa xalaat waaw bu ñëpp defoon ni man luy xew bu boobaa la ngay jëf su dee lu baax la ñëpp def ne yow mu baax lool ñu gis ne. bokk na ci li ñu considéré comme farata mooy daara yi nga xam ne ñu ngi fii ci biir dëkk bi am na ci ñoo xam ne ay internat lañu am na daara yoo xam ne xale yi dañ doon jóge ci kër yi dem jàngi comme ni doon jàngi école yeneen yi waaye am na ñoo xam ne jaara yalwaat la te loolu tàmbalewul ci 14 mars loolu mu ngi fi woon Euh, mu ngoog euh, niñ lañ ko waxee woon ganu xibaar yi El Hadj seen lañ ci euh, dalal responsable politique président bu mouvement mental fii di également doomu zone nord El Hadj waa waaw salaamaaleykum Ahma maa ngi leen di nuyu bu baax maa ngi leen sant di leen gërëm aussi tamit di leen ñaanal di rafetlu seen liggéey bi nga xamante ni moom ngeen def à Thiès ay environ Covid 19 euh, ba mu duggee ba Thiès ba léegi gis nañ nag taxawaay bi nga xam ne acteurs politiques yi am nañ ko mais également le mouvement mental euh, taxawaay bi ñu ci am la moo ko waral. waaw euh, di di profité sax ci occasion bi di ñaan mbas mi nga xamante ni moom la fi yàlla dugal yàlla na ko fi yàlla gaaw génn te wutale ñoog lu ko gën ndax nit ñi sonn nañ trop ah depuis nag mu commencé ba tey ñun suñu devoir moom mooy def ci lu ñu war un bi ci njëkk muy mouvement mental. li ñu war moom mooy ñu sensibiliser nit ñi muy jeunesse bi muy femme yi muy ñëpp nit ñi d'une manière général beneen bi si topp aussi tamit moom mooy li ñu war mooy mu génn ci li ñu am li ñu yàlla wërsëgalee def ko ci jàppale ci ñi nga xamante ni jàpp na ni ñun ñoo leen mu lu jëm ci ay don di ay masque di ay détergent di ay euh, gel al di alcool gel di ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni si nii yu mel noonu la parce que loolu lépp ci sensibilisation bi la bokk bi ci njëkk moom mooy nga wax nit ñi dégg bi ci topp moom mooy nga jëf nit ñi gis te loolu moom moo doonoon suñu taxawaay depuis xeex bi commencé ba tey alhamdulilah nag buñ sañoon nit ñi duñ toll fenn fu ñu leen di dimbalee wala lu ñu ci wax mais situation oblige foofu la xeex bi toll moom moo tax ñu boole suñu doole ak suñu jëf ak suñu wax yëpp. da ko ci def ñaari fan ci weeru juin euh, ndongo yi war a def examen war a fas yéene dellu ci classe yi te gis situation bi jamono ji Covid bi mu ngi. Euh, euh, gën gi euh, avancer te yow ku la xam xam xam nañ la ci jàppale ndongo daara yi gis-gis boobu noonu ndax jàpp nga ne xëy na lu war a mën a am la. bon mën na am mais c'est trop compliqué c'est trop compliqué parce que xam nga jàngoro ji ni muy ni muy wàllee ñun ñëpp xam nañ ko ni muy doxee ñun ñëpp xam nañ ko tey ji aussi tamit pour duggee ci wàll enseignement bi. nga dugg ci classe bi xale yëpp takk ay masque enseignant bi takk ay masque fas yéene jàngaleeg masque c'est trop difficile en tout cas ci bari na ci bari na ci ay affaires yoo xamante ni si nii ah ci gis-gis dina dina naqare mais comme état jël na disposition yi nga xamante ni si nii jàpp nañu disposition yii la war a jël peut-être xëy na dina am tuuti loo xamante ni si nii dina ko xaw a allégé xëy na mënul réussir à 100 pour cent mais xëy na mën nañ def sax ba atteindre objectif bi à 90 pour cent parce que tey ji comme état jël na matuwaay yi nga xamante ne si ni moom la war a jël ñu ni élèves yi nga xamante ne si ni ñoom ñoo nekk en classe d'examen ñoom rek ñoom ñooy jàng tey ji nii ñu ni aussi tamit élève bu ngay jàng da nga takk sa masque su àggee foofu am na alcogel wala am na ay détergent yoo xamante ne si ni war na ko raxaso xëy na peut-être li ci des moom mooy suñ duggee ci biir classe bi ñu jël distance bi ñu respecter mesures yi distance yi nga xamante ne si ni par exemple moom la ñu mais en tout cas c'est trop compliqué mais xëy nag c'est xëy na ñoom peut-être la ñuy xam ak information ba ñu am ñun duñu ko am mais am nañ yaakaar ni disposition yi ñu wax ni moom lañu jël xëy na su fekkee continué nañ ko noonu xëy na mën nañ ko réussir mais en tout cas c'est trop compliqué quoi. aide bi coow li bari na ci ba léegi askan wi ñu ngi toog di xaar euh, gisaguñu ceeb bi euh, euh, lan ngay lan lan ngay wax ci loolu. waaw bon edd alimentaire bi yeex na parce que nag gars yi dafa ñuy faral di wax ni yàpp xas buy seddee dafay soof ba ko président lancé wooy ba tey presque jàpp na ni ëpp na mois et poussière. man mi ci ñi doon recenser nit ñi pour ñu jox leen aide alimentaire ci laa bokk ci gox ba ma dëkk en tant que CDS euh, tey jii nii demoon nañ ba benn moment nit ñi dañ ñuy woo fu nekk dañuy wax séddale bi fan la toll ah li doonoon suñu devoir ñun def nañ ko moom mooy recenser toog ak commission bi mettre ko au propre jébbal ko ñi nga ñi nga xamante ne si nii ñoom lañ ko war a jébbal xëy na aussi tamit li ci des état moom moo moom mooy moom moo moom moo xam nan lay gérer cëggal guyam mais am nañ ci yaakaar nag presque léegi mu jeex parce que boo gisee trois jours yi ñu ñu ñu génn nii commencé nañu woo nit ñi ku nekk numéro bi nga dugaloon commencé nañ leen woo di leen jox ay di di leen di leen jox ay bon comme comme weesu nañ ci étape yi gënoon a jafe étape bi si njëkk moom mooy recensement bi étape bi ci topp moom mooy woo tey jox bon bi xëy na li ciy des kon pour ñu récupérer ko waratul a sori. Mhm. waaw kàddu gu mujj gi moom mooy euh, di leen sant yéen. Euh, Thiès Info di rafetlu encore une fois seen liggéey aussi tamit di di di di di sant di gërëm jeunes yi ak responsable politique yi nga xamante ñoom ñoo nekk Nord ak Thiès yëpp parce que nag bu ñu waxalee dëgg rek nit ñi lu ñu mën ñu ngi koy def ñu ngi dimbali nit ñi ci ay aide alimentaire ñu ngi dimbali nit ñi ci ay détergent ñu ngi dimbali nit ñi ci ay sensibilisation yaa ngi gis jeunes yi léegi rek bi may ñëw maa ngi taseeg benn groupe jeune boo xamante liggéey bu rafet bi nga xamante ne si nii moom moom moom moom moom lay def vraiment yooyu yëpp soo ko boolee nit ñi nag yayoo nañ ak sant parce que ku dul sant nit ñi doo doo sant yàlla loolu moo tax vraiment ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gën ñaaxaat nit ñi di leen wan ni feebar bi jugee gu fii feebar bi jugee gu fii nañu gën a góorlu respecté mesures yi respecté couvre-feu yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo tane ñi nga xamante ni si nii amuñu ñu dimbali leen profité ko aussi tamit ci weeru koor bi baalu ci nit ñi àq lépp loo xamante ni nit ñi mën nañ ko def lu baax ñu def ko parce que foofu la ñuy xaar nit ñi nit kenn mënu ko lekk kenn mënu ko naan li nga mën rek moom mooy nga dimbali ko moom mu dimbali la nga dimbali ko ci li nga mën moom mu dimbali la ci li mu mën loolu rek lañuy ñuy ñaaxaat ñi di leen sant bu baax di leen joxaat rendez ba beneen yoon rek incha allah. mbokk yi ngeen jëf lii le moo fi gënoon a fës ci xibaar ki leen ko doon faram-fàccee di seen mbokk Ahmadou Ly ma feggoo nag Adama Ndiaye ci wàllu xarale gi cant ak ngërëm ñee na leen jox leen rendez-vous ëllëg incha allah jërë ngeen jëf aara bul